man Mamadou sàmm laa bari na ci ñu sàmm yi ñoo xam ni bu seeni jur feebaree duñ ko yëgal service vétérinaire yi nekkee seeni diwaan ñàkk yëgle boobu jëmee ci feebaru jur gi mën naa indi gàllankoor ci service vétérinaire yi loolu dinay jur ñàkk taxaw bu doy jëmee ci feebaru jur gi dina indi tamit ñàkk xibaar ci ñi amee dogal ci wér gu jur gi dem ba mën a soxal koom gi man bés bu yàlla sàkk damay nemmeeku sama gétt gi bu dee am na ci jur gu feebar ma yëgal ko service vétérinaire bi nekkee ci gox bi ngir sàmm wér-gu-yaramu jur gi ak askan wi nañuy yëgle jur gi feebar ci service vétérinaire yi ñu gën a jege